visant à diviser l'opposition, nous apprend Réumi Quotidien qui souligne que Khalifa Sall vote oui. Mimi Touré, dans l'info aussi, évente le deal Makiwad, dévoilant le soubassement de l'appel au dialogue du président Macky Sall. Nous retrouvons Mimi Touré dans Vox Populi où elle refuse l'appel à des concertations nationales et accuse le PDS de dealer avec Macky Sall sur le dos des Sénégalais. J'ai inventé le deal PDS-Macky, affirme aussi Aminata Touré dans disent à l'appel au dialogue du chef de l'État pendant que Khalifa Sall est dans le ni oui ni non pour l'instant. Même s'il ne dit pas oui dans Vox Populi où il dit tout, Khalifa soutient que l'essentiel est qu'il soit candidat, peu importe que ce soit par une modification du code électoral ou un projet de texte, rapporte ce journal. Et le journal Bisby déduit de ses voix discordantes dans l'opposition sur l'appel au dialogue que Maki fissure Yewi. Source A Ce journal souligne la position de Khalifa Sall qui estime qu'il faut qu'un dialogue se tienne. Ce qui est important, ce ne sont pas nos petites personnes, mais le pays, ajoute l'ancien maire de Dakar, pendant que Sonko lui estime qu'un dialogue a déjà réglé les problèmes et que Macky n'a qu'à prendre un décret. Et ce dialogue, si on en croit Wolf Quotidien, constitue l'appât de Macky. Sonko, lui, est vu par l'observateur face à un choix périlleux relativement de la position radicale du leader de PASTEF et évoque l'obligation de se présenter au greffe la veille de l'audience et les risques d'une ordonnance de prise de corps. En attendant tout cela, dans Critique, Mambayon qui tient à son appel promet qu'il le veuille ou pas, Ousmane Sonko se soumettra à la loi. Le même Ousmane Sonko dans Yor s'estime persécuté depuis 4 ans par la justice. Ce journal fait zoom sur les violations systématiques des droits de l'on revient sur le grand oral de Maître Mam Adama Gay sur Réumi TV où il a plaidé pour la tenue des États généraux. Car selon lui, tant qu'on n'aura pas tenu ces États généraux, on ne pourra pas régler le problème de fond de la justice. L'ancien bâtonnier juge aussi qu'on soigne une justice malade, mais on ne l'achève pas. Son grand oral est à lire à la page de Réumi Quotidien et à la page de ce même journal, on rapporte qu'en marge de la fête du travail, a prôné l'audit Li Presse. Et lors de cette fête du 1er mai, Maki a été mise au défi sur l'augmentation des salaires, la baisse de la fiscalité sur les salaires, les difficultés dans certaines entreprises, entre autres, rapporte Sud Quotidien où les centrales syndicales interpellent le président de la République qui reste catégorique cependant, soutenant que l'État ne peut plus augmenter les salaires. Maki dignette à toute hausse de salaire, nous apprend aussi les échos Aussi, le chef de l'État réaffirme que l'État ne peut plus augmenter des salaires, expliquant que le maximum a été atteint et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. L'astre de Anne met le curseur par ailleurs sur les efforts énormes et historiques déployés par l'État pour lutter contre la vie chère et fait état de 1185 milliards de francs CFA en deux années. Restons dans le quotidien national qui livre les hommages à un journaliste inspirant informant Le journal Vox Populi nous apprend justement que le journaliste décédé a été honoré à titre posthume car le Sisti porte désormais le nom de Mamles Camara. Vox Populi rapporte aussi des hommages unanimes sur les qualités et valeurs du défunt journaliste formateur. L'Est ne tombe pas, déduit enquête de ses plus dommages pour le journaliste Mamles Camara. Hommage unanime à un journaliste intégral, titre pour sa part l'AS et 24 heures estime qu travers le rappel à de Mamles Camara, la presse sa boussole. Et pour Libération, dont Mam laisse un grand vide. Ce journal livre aussi une autre triste nouvelle, informant qu'à Kaon, un bus s'est renversé et a fait trois morts ce week-end. Libération évoque aussi la concession de l'autoroute à péage pour nous apprendre que de à la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir n'a pas versé la redevance de régulation. Après une plainte de l'ARCOP ex-ARMP, elle a été condamnée à payer 3 milliards de francs pour les arriérés sportive, révèle ce quotidien. Le quotidien Réumi, dans sa version sport, euh, nous conduit à Chelsea et s'interroge euh, sur la fin de saison pour Khalidou Koulibaly. À la Cannes des moins de 17 ans, les Lyonceaux, eux, se sont offerts leur première victoire face au Congo à informe Réumi, pendant que Stade, le quotidien du sport, dévoile le gagnant du week-end en Europe, constitué par Boulay, Jackson, Bamba et Illiman. Coench, pendant ce temps, a enfoncé la creuse après 12